asiru ma abaarihin asiru wasalna nida amiruna asiru asiru ma abaarihin asiru wasalna nida amiruna Cheikh du Bamba ak julli euh, man sànq bi may ñëw euh, di ñëw amoon naa jafeñ-jafeñ pour yegg si jumaa ji dama fekk fépp ñu lal ko boo xoolee ay ndaw rek ngay gis seen karaw yaa ngi ñuul kukk gis ay xale ba daanaka sax fii nit ñi pour ñu julli problème la pour sàppe sax pour foo sëpp sa jë amoo ko nit ñi dañ doon obliger di sujjóot ci gannaaw gana nit ñi nekk si seen kanam ndax xataay nga xam ne tey euh, jàkka ji fees na dell ba ci marché yi fépp nit ñaa ngi lal di julli loolu wax dëgg yàlla ndam la loolu tamit jar nañu sante ko yàlla te Cheikh Ahmad Bamba loolu rek la bëggoon Cheikh Ahmad Bamba ak jullim ak julli mooy dundam yëpp julli la dundam yëpp julli la ba ci cant gi nga xam ne sax mooy sensu màggal gi euh, sant boo koy seet moom ni mu ko définiree daf na yàlla dinaa ko sant ci julli julli farata dinaa ko sant ci def ay naafi la dinaa ko sant ci jëf lépp lu baax lépp lu yàlla daganal rek dinaa ci sant sama borom waaye gis nga bi muy wax cant daf ne dinaa ko cant bil furuudi bi furuudin wa sunan mooy di julli julli farata yi d'abord foofu la cant di tàmbalee li ci tegu mooy def sunna li ci tegu mooy def lépp loo xam ne lu nu sopp la def lépp loo xamante ne lu dagan la kon jàppale ko dëgg-dëgg ci bésam bi mooy def farata yi dundal sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam parce que euh, fondement bi mooy julli ñun ñëpp xam nañu ko tabax boo ko bëggee def taf amul fondement tabax bi du dëgër lépp lu ñuy def rek faratey lañ ciy jiital li yàlla bëgg li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bëgg kon Cheikh Ahmadou Bamba ak julli euh, gis nga xissa boobu nga xam ne dañ koy nettali ci ci géej gi euh, bi muy bi muy julli ci géej gi loolu moom waru ko woon dina mucc du mucc mais def na yàllaa ko ko sant rek na def farata na def farata jeex na amut leneen comme fara euh, war naa julli julli jot na moo xam farata la wala naafila la da ko daan def avant muy ñëw ci géej gi bu waxtu wi jotee da koy def li ci des mu bàyyee boppam ak yàlla kon képp koo xam ne da ngay askanoo ci moom li nga war a gën a fonk muy julli li nga war a gën a fonk mooy sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu fekkee ne comme ni mu ko waxee ci euh, gàmmu ne boo koy def na nga ko def mu dëppoog sunna tanzimuhu bi sunnati yaquduna lil jannati waaye tamit euh, màggal yi dañ ko war a def mu dëppoog sunna di def ay farata bu ñu paree ci farata yi julli julli julli naafile yi ñu def ko gis nga julli mu ngi nettali ne laat bi mu nekkee tout tànk boobu dalagul jàng yaayam di soxna jaariyatullah daan na ko nettali dund gaa ñu baax ñi ne ko ñooñ de guddi bu mosaana jot dañu daan fanaani julli di jaamu yàlla nee na boobu la ko tàmbali te boobu dalagul jàng maanaam amul sax juróom-ñaari at commencé na di la guddi di julli guddi kon dundam yëpp julli la boo ci dindee julli dara desatu ci comme ni nga ko waxee ñun ñi nga xam ne ñooy doomam di ay sëtam jaamu yàlla tamit wax dëgg yàlla euh, mooy nekk suñu doole mooy nekk suñu kàttan gis nga jumaa ji moom fu mu nekk rek li muy xalaat mooy def fa jumaa demal si jumaa wu njaareem ji plan boobu noonu doo ko gis ci Afrique ba mu daj Turquie nga koy fekk boo demee Turquie ci ngay gis plan boobu noonu te gis nga nee nañu dafa yebaloon Cheikh Issa Diène pour mu wutali ko plan xam seetal ma yitte ju tool noonu parce que turc moo doon symboliser civilisation islamique parce que état l'islam bi euh, amirul muminina xilaafa gi foofu la mujj tabax yi gën a rafet ci tabaxi l'islam yi boo demee da nga koy fekk turc boo demee Mosquée ble bleue ma nga fa boo fa de ay ay Aya ma nga fa ak yeneen jumaa yoo xam ne jumaa ayu Abu Ayyub al Ansar ci Istanbul yooyu yëpp ñu dem ba Turquie indi plan bi muy jumaa wu njaareem ji gis nga juma jii nii ba mu nekkee ci tumurank bi defar bantam yooyu samp ko pour jàppee ko jàkka tubaab bi ñëw fallaxe ko yàq ko effacé ko yàlla ne ko sa jàkka ji dinaa la ko fayee jeneen jàkk mooy jàkka ji nii kon moom jàkka jumaa julli naafi la loolu moo nekkoon dundam dëgg la kon bu ñu la déggee mu mel ni résumé nga œuvre suñ Tuubaa maanaam ci julli ak ci sunna dundal sunna yonent bi salallaahu alayhi wa sallam ci loolu rek nga ñu bëggoon nga taxaw ci ndax nee nañ Sëñ Tuubaa bokk na ci ñi gën a tagg rasulullah dem na ba dépassé sax Ibn Saabit ñu bëggoon xam loolu ban jàngat nga ciy def tey koo xam ni africain la sénégalais la dem ba ñi mooy maanaam mooy première poète ci maanaam tagg rasulullah mu dépassé si ñëpp ban jàngat nga am si loolu. waaw li ñu si mën a jàngee euh, nekkul di ko tagg moom en tant que sëñ Touba naan def na lu kenn deful parce que loolu tamit du jëmale kanam réew liy jëmale kanam réew liy dooleel lislaam mooy tànk ya mu jaaroon rek ñu jaar fa euh, monsieur Camara xam nga ku mel ni Cheikh Ahmadou Bamba ñu ne nit ku ñuul la xoolal li mu def ci littérature arabe tey boo doon compter jullit yi nga xam ne yitte woon nañ la langue arabe ñu néew lañu waxuma la sax di dégg làkk wi mais mën a liir kaamil bi sax munuñu ko munuñu liir alxuraan. te ñu ngi naan moom lañ bëgg moom la ñuy roy seetal ñaata ñoo koy wuyoo tey te bu ñu ubbee kaamil bi mënuñu ko liir kon loolu sas la ci ñun ñu fexe maîtriser la langue arabe parce que mooy langue l'islam langue officielle lislaam langue arabe la langu euh, langue bi yonent bi bu déggee beneen lakk tamit waxu ko woon arabe la doon wax alxuraan làkku arabe la waa aljanna ëllëg lakk bi ñuy lakk arabe la mu dem si di ci dem di ci dem di ci dem ba boo jàngee mbindam buñ ne la lii nit ku ñuul moo ko def doo ko mën a gëm kon loolu d'abord sas la waaye tamit sant yàlla la nga xam ne am daax yi mu def ci yonent bi sallallahu alayhi sallam fu ñu dem ci àddina bi tey mën nañ ko fa gaaral dégg nga nga xam ne salawaat yi mu def ala rasulillah muy julli ci yonent bi sallallahu alayhi façon bi mu ko defee jaaxal na àddina yéem na àddina kon loolu moom daf ñu xallal yoon wi ci bëgg yonent bi sallallahu alayhi sallam ci tagg yonent bi sallallahu alayhi sallam ci màggal yonent bi sallallahu alayhi sallam amul benn baxar bu ñuy taggee yonent bi lu dul tagg na ko te da koy def ci anam yi gën a kowe def ko ci anam yi gën a rafet mosul xam benn nit bu ñu ne kii tagg na yonent bi lu dul dina jéem a buuxanteeg moom xam nga di dem di dem di dem di dem ba nga xam ne nee na fa gaa yu mag yeggoon ci tagg yonent bi moom yegg na fo waaye sax dépassé na leen xam nga loolu ambition bu kowe la ak yitte ju kowe kon tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dëgg la nit ñu baax ñëpp dañ koy xëccoo nit ñu baax ñi ñëpp. koo ci dem du nangu ne moroomam moo ko mën ci tagg yonent bi daanaka dund wàlli yëpp noonu lañuy ñuy def parce que côté bu nekk dinañ nangu ku leen fa mën mais ci bëgg yonent bi moom dañuy lànk dañuy bañ ne kenn mënu leen dégg nga su ko defee léegi loolu ñu bàyyi si xel euh, gën a gën a gën a gën a gën a jàng tagg yi mu tagg yonent bi li mu tagg yonent bi yëpp war nañ ko traduire en français traduire ko en anglais traduire ko ba ci chinois addina bi xam ko parce que li œuvre Cheikh Ahmadou Bamba tey àddina bi dañ ko war a xam damay wax toujours rek na xoolal xoolal xoolal rek lu mel ni Masaalikul Jinaan tey tënk bi nekk foofu noonu àddina dañ ko war a xam dañ ko war a jàngale am daax yi mu tagg yonent bi sallallahu alayhi dañ ko war a traduire dugal ko ci école yi xale yi di ci jàng mag ñi di ci jàng dëgg-dëgg dooleem ak kattanam ak ndamam tey ak moo doon bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu koy jëmmal nag ci tagg yi mu daan tagg yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam loolu leer na donc dernière question rek comme nga yow nitu média nga da nga yëngu ci wàllu média ak ci wàllu information ñu gis ni ren ak année yi ñu weesu communauté Mouride def na ay jéego yu rëy ci wàllu communication donc comme en tant que acteur des médias ban jàngat nga am ci loolu ak ci communication tollu tey ci àdduna bi. non dama ci dama kontaan dama dama dama am fierté ci wàllu communication ci màggal gi boo dégloo sëñ Abdou bi nga xam ne moo moo yor lépp lu aju si communication ci Abdou Lahad Gaynde Fatma vraiment da ngay bëgg da ngay gis ne kii. li muy wax liñ ko yan xam na ko li muy wax xam na ko xam na fi àddina bi toll xam na moom mooy kan xam na lii mu yor lan la tey ëmma tey xoolal àddina yëpp a ngi Sénégal tey àddina yëpp a ngi Touba arabe yaa ngi fi naar yaa ngi fi chinois yaa ngi fi ñëpp a ngi fi tey bu nu ñibbee dañuy yóbbu li nga xam ne moom lañ fekk Sénégal tey mu ngi mel ni coupe du monde ni ko àddina bi joxee xelaat jox ko yitte tey noonu la ñu mel ku nekk nag ak li ngay yóbbu moo tax ñun amuñu droit def erreur. amuñu droit def lenn lenn loo xam ne day ñaawal dundu Cheikh Ahmadou Bamba parce que taskatu xibaar yi fi ñëw tey ku nekk li nga gis ngay yóbbu moo tax lu rafet lu baax lu dëppook sunna lu dëppook njàngale yontu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam boobu rek lañ fi war a joxe tey jàpp naa ne kilifa yi nga xam ne ñoo yor fànn googu surtout Cheikh euh, Abdoul Ahad Gaynde Fatma vraiment vraiment mu ngi def innovation yu yéeme mu ngi ciy def liggéey boo xam ne bu yéeme la waxuma la sax moom kaddu bi muy wax wa bu waxee rek. doo yëg ne tey dafay waxal mouridisme kese mais dafa mën a wax au nom de l'islam tey lislaam li mu soxla ci communication xalifa cheikh boobu noonu Cheikh Abdoul Ahad daf ko incarné ak ñi nga xam ne ñoo ànd ak moom di jàppalante ak moom tey wax dëgg yàlla ñu ngi sant yàlla ba gis nañ média wu àddina bi yëpp tey ñëw na fii nii ñu ngi wane jumaa ji ñu ngi wane jullit yi ñu ngi wane jullitu Sénégal yëpp tey dajee nañu fii tey jullitu Sénégal yëpp association islamique tariqa tijaniya tariqa qadiriya même ñi nga xam ne sax nekkuñu ci diine ji sax dañuy am seen wàllu ci màggal gi bennoo boobu noonu taar boobu noonu wane ne àddina bi yëpp rayantee nga fa ñu ngay turante ay deret mais boo ñëwee Sénégal yaa ngi fekk nitu tarixa yi ak nitu association islamique yi ak même ñu ñu bokkul diine sax dégg nga violence bi nga xam ne moo moo moo nekk ci àddina bi tey yàlla musal na ci Sénégal loolu tey bu ñu ko jëlee ñiy yëngu ci wàllu euh, information tas ko loolu xéewal lay doon. si si defee coup bi Égypte. bi nu ñëwee di waxtaan imaam Dame Ndiaye daf leen waxoon benn wax daf ne leen yéen bi ngeen ñëwee fii dangeen ngeen ñu waroon déglu dégg nga parce que yéen seen dëkk coup d'état moo fa am ñun ngeen waroon déglu tey ñun Sénégal ñu jàngal leen lan mooy droit de l'homme ñu jàngal leen lan mooy tolérance ñu jàngal leen lan mooy jikku diggu doomu ci l'islam parce que ñun loolu culture la ci ñun ci suñu deret la nekk kon ëmma ñun am nañ lu ñu jox addina bi Sénégal am na lu bëree bëri loo xam ne addina bi amu ko te dara munu koo tas nag lu mel ni information te façon bii ñu koy ñu koy gérer incha allah dina gën a jëm si kanam incha allah. mu mel ni kon la nga ni sëñ Touba dénominateur commun la rek dafa fédéré ñëpp boole ñëpp sa kàddu gu mujj looy tëjee. loolu mooy dëgg biñ ko laajee na ko ñan ñooy murid yi man humul muriduna sëñ Fallou Bousso wax na ko léegi ci plateau bi ñu amoon ak bi ko tubaab bi laajee na ko man humul muriduuna ñan ñooy murid yi mu ne al muriduuna hum al muslimuun al muminuun al muhsinuun képp koo xamante ne ni euh, muumin nga gëm nga yàlla murit nga képp koo xamante ne ni muslim nga euh, murit nga képp koo xam ne da ngay def lu rafet murit nga kon Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasoul laysa milkan li Sénégal faqat bal huwa milkun lil muslimina jamian bal lil insaniyati jamaa nekkul koo xam ne muridisme kese moo ko moom wala jullit yi rek ñoo ko moom waaye humanité bi yëpp ñoo ko bokk ñu ngi ñaan yàlla yàlla na yàlla bu mu dañ mukk ay niiru yërmandeem ak ak mbégteem di ko sotti ci bàmmeelam boobu nga xam ne tëdd na ko euh, liggéey bi nga xam ne daf ko defoon jubluwu ci woon dara dara dara dara dara lu dul liggéeyal yonent bi liggéeyal réew mi ba nga xam ne bi mu paree ci liggéey bi ñaan ga mu ñaan wa wajaal rujuu'i ila qawmi saadatana wal takfina yowma jamil xalqi niiraana yàlla maa ngi lay ñaan na nga def sama ñibbi bii may ñibbi sama réew mu nekk bonheur naa mu nekk bonheur pour Sénégal nekk bonheur pour Afrique Afrique loolu la ñaan waxul sax koom-koom mais bonheur bonheur moo ëpp lépp parce que nit dina am xaalis du am bonheur nit dina am pouvoir te du am bonheur mais Cheikh Ahmadou Bamba def na ñibbi gi na nekk bonheur pour sénégalais yëpp nekk bonheur pour jullit ñëpp nekk bonheur pour Afrique te bés bi nga xam ne ci ngay dekkal nit ñi muy bés penc wal tak fina yow ma jamil xalqi niiraana yàlla nga ñu musal bés bi ngay dajale mbindee fi safara yàlla bu ñu fa dugg ñaan googu noonu yàlla na ko yàlla nangu yàlla nañu yàlla fayal Cheikh Ahmadou Bamba kullu aamin wa antum bi xeyr wasalaamu aleykum wa rahmatullah